yàlla yàlla yokk leeram. allahumma amiin mais nag yaa Seydi il faut ñu ñu ñu wax ci làmb yi ñuy organiser jour de semaine. ma surtout ñun ñi dëkk pikin te léegi li ci gën a doy waar même les week-end ñi dëkk pikin dañuy sonn parce que xale yi samba yi dañ ciy rax bu ñu paree làmb ji dañuy agressé di jël yi fi jàmbu les week-end on peut nit ñi mën nañu fexe ba toog seen kër yi ndax du ñu liggéey ji. ma dugg ci liggéey wàcc ñu dogaale la këf sa yef ma dugg ci loolu wala. loolu ma dugg ci. <laughs> ma di leen ma. man su ma dee hors sujet dama ko <laughs> man damay tëral damay damay saaraan di dem de. Oustaz duggal looloo tax mu laaj la di. ah. Mhm. xel mi dellu si waat incha allah dafa loolu mënoon xaar tam da ngay wax lii léegi. dama ko bëgg. sang ba ca Medina. sallallahu alayhi wa dama ñaari baat yu solo xam nga boo xoolee sama waxtaan yi dama ko daan duggal ci waxtaan wi ci biir politique bi ñu bëri ñu bëri am na ñu ngi xalaat ne Oustaz Diago loo wasoon wax ma ne ko non bul wax ne loo doon wax da nga naan yàlla wax rek yonent Yàlla Muhammad man du ma dara damay nettali yonent bi dafa wax ne sallallahu alayhi wa sallam al amiru jairun xayr min fitna wala al fitna al amiru jairun xayr min fitna wa kullu xayru fihi wa fii sarran xayaara boo dégg ma naan buur bu juum moo gën réew mu juum yonent bi ne buur bu juumee ñàkkul ku ñu rus ci réew ma mhm. mën na nekk sëriñ mën na nekk Zeynab mën na nekk Mami mën na nekk ay Ahmed Dara def ut audience déplacement mhm. dem toog président de la République Macky Sall mais comme Oustaz Diaga dafa may xeeb ah man ko ma xeeb yàlla xeeb mooy Seydou noonu xeeb xeeb ndax bopp bii di ci nekk bëri na koo xam ne sant na sant sant na sant na sant la ma mën a jàng jàng ko donc nag maama ma baax mais sénégalais la kokki laa fekk baax te am na ma yàlla def sama bopp bi mhm. ma ko président li may gis foo ko teg quest a a rek am ko réer mhm. ko làmb ji suñu culture la am na ku mel ne Oussa Diagne man bu du ma seetaan bë bëri mhm. mais pecc maag tëgg yooyu ak way yi dafa ma neex ndax que nag ña fay dugg yëpp nag ku nekk ak la la fa indi am na yoo xam ne bii xoolal bàkkale indi. am na ko xam tëgg mel fi indi am na ko xam ne way am na ko xam ne bëree mel ni mais am xam ne bii popularité bi moo fi indi moo tax toujours arab danaan foo gis mbooloo du ñëpp a bëgg leen la am na ko neex. waaye seet naa bi amateur bi ñoom dafa fàgg biyam ngir lan culture yàgg na ko def wala wéet na waaye koo xam ne bii ma nga ca gannaaw oto toog ak jaaseem. xam nga xaar mu daggalu oto yi yàq sàcc dangam mais boo boobaa nag léegi yow kan mooy responsable c'est l'état c'est ministre de l'intérieur ni nga mën a ba aaree kër ku mel ne kër Ousmane sonk kenn du jàll kenn du génn woon ko aar làmb ji. ah ñi dëkk ci euh, sori naa sax man tuuti arène ñi nga xam ne tam ci. mais ci côté arène bi. mais mais xool eh, tribunal eh, bi suñu alal la waaw. lieu lii commercial yi nga xam ne bii administration tubaab bee ko am mais survie la nekk mais peut-être ay xale ndaw ndaw ndaw bëgg accaparer réew mi mais kon loolu yitteelu la te nag ku fi gar ku fi ba ñu gor te nga man ci dara yàlla ëllëg yow la koy teg sa bopp ku mu tax yonte bi ne kon buur bu juum moo gën réew mu juum buur bu juumee na man keneen nangam su ko wax man ah am na mu jël téléphone na mu l'intérieur mais li may dégg nag boobu amati ñu sécuriser yoon wi mais làmb samedi dimanche la ko xamee man bi ma bi ma meer naa ma kaay dem sax ma ne ko lu xew mu ne ma làmb yi teel ndax dañ ko ajoon mooy jour bi ñuy tëj mu Ousmane Sonko te yàlla na génn jàmm. jour boobu làmb ji boobu la woon mais comme dafa tombé ñu ne ah dañ cee ragal agression waa da nga ragal agression booba lu tax doo ko ragal bii. mais bu ñu ko def jour de semaine. dégg nga bi ci des yéen itam xam ne kon allah taataman naaw am intention léqa a dajeeg adduna bi mooy ku la ëpp doole rek man koo def état man ngaa def ko ëpp doole waaye nag fa isa laqitumuhu fasbutu ak ak yàlla bu ko nit moomee nga xañ ko mu a ripostel yonte yàlla Muhammad ko wax sallallahu alayhi léegi nag seet nañu nag wuyu toujours lu mel ne ci lay profité maa ngi koy wax ci sànq wax ji mbër yi ak amateurs yi ak ak lan yi seen propre intérêt tax mais c'est pas peuple buñ tëjee làmb ñu kaas neel benn mais yi sàcc àll nag te si yoon ci làmb ja liggéey nañ ba wàcce nga pompé lañ jël seen portable gor leen mais ba ki dem nañ gor nit gor ci ginnaaw gi lañ ko jot dóor jaasi gis nga di làmb ja ba cinéma caaro yi lu fa nekk yàq nañ ko ñoom ñu seen ci làmb mm-hmm. loolu nag li am ba am na moo tax yàlla Omar Ibn Khattab nee na keroog bi waa ji jëlee bagage ak jóge sàmm ba ay bagage yow bu jur bagage a daanu mais comme ça bu ko porte plainte Omar ne nañ ma wàññeel lépp lu ko yàqule ma fay ko ci àllu ba ci xool ci mil euh, ko fay xam nga wax mu ne lii may fay génn ci keesu état bi di ko fay waa ji nga xam ne bagage dafa yàqu muy transporteur bi billaahi am war a wax de yàlla damay topp ba yow ma xam bagage ba ne dana ko audité te yow ma xam amul waaw kon pourquoi duñu defar yoon yi pourquoi duñu defar làmp yi mhm. pourquoi duñu sekkal si yoon pourquoi duñu teg ñi ci coon ku nekk ci dëgg ñu teg ñu ci dëgg kon am bala moo bala moo am soqali gaz ak pétrole nañ yar nit ñi dëgg la yoon na tegu ci yoon mooy ku tëgg ku nekk ci dëgg ak walaw kaana naf sa kaw sa bopp dal sa kaw te xool Seydina Muhammad mhm. sang ba ci métti ku ko gën kenn ba benn jigéenu dignitaire sàccee mhm. ca Madina ñi ñëw di ko tinu Usama ibn Zayd ñëw ne yaa Zayd ibn Xaalid ne yaa Rasulullaah kii de ab sàng jigéen la noble la ko bañ ko dagg buuma gàccee la. Mhm. mais dafa def erreur. yéen ko ban erreur mooy dafa sàcc ci digg bi la jar yéen tàngooru dugg ko ci saasi ba ba Zayd ibn Xaalid ba nga mu ne ko walaw kaanat xoolal ibni mu ne ko doon ko sama doom ji Fatimatu bintu Rasulillah mi toog. Mhm. ku ne xam ne bëgg naa ko sama caat la. wallaahi boo sàccoon may daggal Muhammad Rasulillah sàkkatum ak jàmm gis nga am réew su bëgg a développé mhm. lii réew mi moom nañ ko fi baax mhm. li nga moom nañ la ko jox sa àq la pétrole bi gaz bi jiw bi Macky Sall ëppale wu ci ñaari dërëm yaa ko sa yaa ko cëppale mhm. ndax lu bon bon bon bon boo génnee da ngay tës tësi mais moom lépp ko fekk ci Macky Sall jën ba gën a baax la ko indi këram moo dàqatu fe yàpp bu gën a baax xamul xamul fu marché nekk mais yow mi nga xam ne da ngay da ngay lijjante te li nga nit ñi yaa ko moom mu jafe mooy lan sunu géej gi sunu jën yi sunu mool yi xamatu amatu fu jëm loo tax ñu naan ñu ngi rëcc ci dem ci gaal gi te mënoon naa ñàkk nag. Mhm. te nag ku fexe ba li nit ñi moom nga xañ leen ko lu leen dal yow la. jërëjëf kon. bu ñu mhm. jàppee ci wax yonent bi. Mhm. du ñu juum. waaw léegi ñu jóg ñu naan alaaji Abdou Aziz Maam. wa rahmatullahi alayhi. mais alaaji Abdou yàlla ko njëkk wax. dëgg la rasul ko a wax bàyyi ba ko njëkk a wax. mais dafa topp ci maamam ak yàlla ak yonent bi mu def répétition mm-hmm. nañu respecté yàlla mm-hmm. nañ xam ak ak yàlla dafa am solo ci nit loolu mm-hmm. te yow président yaa dem ne bëgg naa jël réew kon ay imaamu akbar bi deel saytu deel dox guddi te bàyyi fu ñu fu ñu toog ngay nelaw mbaa ngay moytu loolu deel dox di xalaat di yëddu luy fanaan ak ku fi dugg lu fi dugg loolu su ko defee da nga am jàmm àdduna ak àllaaxira yàlla na la ko yàlla defal allahumma salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf euh, yaa say di waxtaan bi am na solo ñi nga xamante ne daal buñ ko déggee dinañ ut saafara ci lii nii ñi dëkkee ci booru wala ci côté euh, stade euh, arène arène nationale bi am nañ ay jafe-jafe lool ak combat yi nga xamante ne combat lutte yi ñuy tëgg les jours de semaine. mën ngeen ko tëgg les week-end vous êtes libre nit ñi ñu préparé wu xam ni week-end kat samedi wala dimanche làmb dafay am bu ñuy toog ñu toog seen kër yi mais les jours de semaine nit ñi dañuy liggéey ji vaquer à suñu wàccee dañoo war a ñibbi seen kër tranquillement mais mu ànd ak sécurité waaye nag bu ñu seetloo ni saa yu làmb amee suñu paree samba booy parce que am na ñoo xamante ne ñii dañu ñëw pour seetaan làmb am na ñoo xam ne tamit dañu ñëw pour yàq ñiy yàq wax dëgg yàlla sonal nañu li ñuy démb Euh, j'ai vu beaucoup de vidéos euh, ci internet bi ñuy wone xale yi def li yor seeni ngànnaay di def loo xamante ne wax dëgg yàlla war naa mën a mën a mën a. di jégalu tuuti rek. ah di jégalu tax mën ma jégalu laajte mu mën a jégalu damaa dugg ci làmb ji ma ne waa bank yi bank yi ak espace bi mu ne ma yëpp dajji nañ ko mën a ko comme ku xamul bank jox ko birig birig ñu toog ci. ku ñëw indi sa impoos bu làmb ji tasee sàcc yi wuy yi xamuñu dugg ña ngi ca ñax ma ñax ma ñu làqatu su ko defee ñu oto mën na leen kuy doxati del def espace del écarté wu saay saay baaxut bu déggee alxuraan ne ku rey ñu rey la bu ko defa noppul xalaat ñu ko waral parce que kii rey xol ba fatt na bu yàgg yàlla fatt na ko moo tax mu ne wallazina fi qulubihim maradun ku yàggat jam nit yàlla day kasta sa xol dootoo nit. Mm-hmm. kon allazina yamsuuna ala lahum maytuna. ku sàcc ku dagg sa loxo. <laughs> dama ne yàlla nee na billaahi li ma teg ci ci yoo xam rasulaay bu ngeen ko deful di am problème. waaye yaa Seydi ñi ñi ñi ñi sàcc dañu ne ku sàcc eh, ñu dagg sa loxo mais ñu sàcc ay milliards nag. par poids la. xam nga en fait boo sàccee milliards fan la ñuy dagg loxo bi yëpp baaraam. non dañuy nan la ñuy nattee nit ki boo sàccee lan lañ war a dagg ci sa cër yi. milliard dafa mel ne daana euh, milliard léegi benn waaye daan moom ustaat nga jaaxal yàlla nee na ku sàcc ëllëg da nga koy teg sa kanam war ko xam nga bâtiment kenn mënu ko sàcc. Mm-hmm. kenn mënu ko indi ci yombal xiyam ak oto. Mm-hmm. mais poids bi day indi poids oto bi. gonfaleel ba nga toll ak xaw a toll tuuti ñu teg la ko xam dana diis ñu ne poids bii mooy oto ba nga sàccoon ne oto dootu ñëw. Mhm. mais bu dee xaalis nag dañuy xasam fi si tàmbalee ñu jël ay pousse da ko jam waa foo jëm bala pousse pousse yi jam ñu yeneen pousse ko jam foo jëm kon nit ñi bu ñu doon gëstu alxuraan ñu bëgg ci dugg nit dana julli julli du fekk du jullit gëmul dara. loolu ma tey bu ñu doon bu ñu doon appliquer charia. kon ñu kon kon ma sàcc 1000 francs. kon ñu des kon. ñu dagg sama baaraam waa ki sàcc milliard moom. 1000 francs 10 000 francs 100 000 francs 1 million buñ ci dagg baaram. Hmm. waaw dama laaj lu tax. lu tax ah islam dagg islam gaawta rey de mais gaawta dagg mais gaawta dóore day def enquête nga toog maanaam nga dem tribunal toog diw. Hmm. lu tax nga sàcc 1000 francs mu ne damaa xiif. Hmm. ñu ne waa ji yow est-ce que bi mu ñëw laaj na la. dafa xiif nga bañ mu jël ci lekk. xiif ko téye. mais am ndax mën nañ ko fayal mille francs yi ba ci millions yi bala ñu ko attee sariya dañuy laaj ndax mën ko ko jégal nga ne waaw udéet ñu ne ko ko mën a fayal ñu ne diw ñu fayal ko kenn doo kenn dagg sa loxo ay sabab la dina ay arkaan ay yoon loo xam ne bii noonu la même kii rey te tayu ko dañu enquête lu tax mu rey ko parce que man nga dem oto rek di traversé tëb mu dee ñu ne attends amuloon tëb mbëkk ko ak ki jël paaka fekk nit mu xool dañ ko jëm ñu ne mbokkam yi ndax dañ ko mën a baal ba pare tëj ko daan ko daan ko daan ko su ko mun nag ab jote ko rey. Mhm. ko rey ni ko déggee rey ak ay ndaw ndaw ne ay mille francs cent francs yooyu détails yu ndaw yow islam mën na ko jéggale boo ko mënee baal mbaa ñu fayal la ko mais islam soxorul noonu de mais nag dafa dafa tegu lépp ci dëgg. ñu sàcc milliard moom daanaka ñoom seen. Euh, oh, soriwul bu ñu doon dagg lan la ñuy dagg. ci lépp non dagg bi. lépp la ñu war a xam nga dagg bi. Ah? lépp. noo dagg bi xam nga dagg dagg dagg. daa bëri yërmande rek. xam nga dagg. non appliqué loolu kay fii la appliqué charia. jam bi fële kay dañ lay yen xam nga dañuy xasab yow dañuy natt li nga jël lan la bu dee alal réew mi la dañ la jël ay ja ràbb di ko jam chaque mille francs jam la benn bu metti ba mu dugub ñu bàyyi ko ci ba mu tuuti ba mu sori ñu demee di jam. xanaa ay yu mag lay nekk bu dee mille milliards. yàlla ci yàlla musal daal. ah kon baax rab <laughs> su ko defee rek léegi nag. Mhm. boo gis alxuraan di ko wax mooy ngeen éviter loolu bala moo àkk. waaw yàlla dafay utal yoon. ne kon nag moytu leen comme dañ koy nettali lii lañ lay def. Mhm. na ci yàlla na yonte bi ci alxuraan nag kon képp ko attewul li ma mën li ma yàlla teg ci loxo yonte bi tooñ nga. naafiq nga weddi nga fen nga yéeféer nga fa man kam bi ma anzala allah képp ko attew li xam ne yàlla atte na ko yàq attewu ci la wax tooñ nga fen nga naafiq nga naafiq nga yéeféer nga kon xam nga yi kon baat yi yàlla benn yoon la wax dootul waxati illa yawm al mhm. léegi nag ñun ñii waaraate ñu war a tegu ci yoon ne ah yàlla neewoon na nàngam kon nag bu ñu ko bu ñëw ci kanam yàlla lu muy layati kon nit ñi nañ jàng diine jàng diine ak jëfe diine du benn am na ku jàng diine mais day jalgati diine su ko defee yow mi bëgg dugg ci diine nga ne ah yow oustaz Diaga yaay tere nangam te fekk naa ci ah islam la dool islam daal du diine dara nakam jullit ñi ñooy def nangam xoolal duma bi am may gën a mettile ndax da nga empêche ñoo war a dugg ndax sa jëf ji kon ñun. bala ñu wax baaxu kenn dañuy wax nañu baax ba pare ñun ñi waaraate nañu war jub ba pare. ñun ñi waaraate nañu war a moytu tappale ñublan ak triam ndax nit ñi la sa conscience. dëgg la man naa nangam doo sëriñ bi. Mhm. laa damay seet looy seet. Mhm. man ñaata nit yow moo dama ne eh man sëñ du ma sëriñ de. du ma baax a ba en tout cas tegteel yaa ngi nii yonent bi ne nangam nangam jeex na waaye kantaa man naa nangam déet déet ndax la looy bañ. ëllëg ñu ne yaa ko waxoon. kon doo seet oustaz doo li kii listixaar eh, ak ñu bëgg yooyu. <laughs> en tout cas listixaar woon ci mën naa ko tekki moom ay gént. Mm. ay gént ay gént ay du yëpp nag maanaam yu ma tekki. ay gént ay gént yoo mën a firi. kon kay xaaral ma ma ma suñu yaay yi ñëw yow géntoo dara ci semaine ah, man ma ñëw sama gént. xam nga gént ñaari gént ah daan nag nag wax dëgg yàlla. <laughs> man man il faut ma jooy nag. man dama laa eh, bëgg àddina xam nañ ni fii ba suba boo doon këf di wax du ma wax. ah waaye bàyyi ma ma nuyoo nag lu dëgg. Hmm? xaaral ma nuyu sama sama yaay yi balaa ñu may mere. ñoom ak ñoom ñooy tax émission bi di neex. xaaral ma nuyu leen rek ak sama njëkke yi nekk ci commentaire yi. mënta ñàkk ñoom Fatou Sane ay ajaratu waaw yàlla baax na liñ la doon jëwee démb rek faaw ñu jug ci. yàlla baax na li mënul woy du dëgg. yow ci jëw bi nga bokk tamit du dëgg. mukk lay na seytaan ndax loo waxul woon démb dëggal nga ko tey. Hmm? Mhm. waaye nag yàlla baax na.